Alwar portable mu ngi nekk fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar di jaay lépp lu xeetoo ak matériel électronique téléphone portable toute marque iPhone Android Techno, Samsung Apple Infinix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 jàngal au Sénégal rawatina gentlemen y écoutez et regardez bien venez découvrir la gamme VIP Rose Gambi d'une dindi ou luy réew tache noire ak lépp tache bu yàgg sa yaram noo Ah, boss. oui Dolly ça va. Ça bu baax. la oui cool. ok. dossier est temps. Je suis ah. Mhm. dara là aussi. si. ni ma ko jotee noonu laa ko indiwaatee. bi nag moom xamu dara mënul sax bind de xamul lan moo

comme gars niñ koy xeexee bañkat yi man noonu laa koy xeexee Brodé bi xamul lan moo nekk fii xamu si dara te lii mën na koo indil problème i nga xamante nii tey jii nii maanaam yow dootoo ko fa génne keneen ak keneen mënu ko foo génne mais papier yaa ngi nii xam ngeen ni carrément nii la demee ñu ko jël mu delloo ko ku soxlawul xaalis doo soxla ay kayit mais benn affaire naa ko wax gis nga problème bi faut que quelqu'un paye parce que mbir mi toll na foo xamante ni man sama loxo àggu fa faut kenn fay. mais même bu fay dee am leer na la ni abu mënul fay ay mbokkam mu ñu ñoo fay mais kon dina metti ci moom nañ sànq doomu jàmbur duñ xam si lu mu nekk. mais vaut tamit ngeen jéem a xool nan lañ koy businessé tamit ba këyit di dem moom mu dem topp ay xalaatam quoi man loolu laa gis. <coughs> ok léegi maintenant le reste je charge li ci des bàyyi ko sama loxo dinaa ko jëm a gérer. ko gérer mais bu kenn yëg. c'est entre nous il faut qu'on soit professionnel. Mm-hmm. parce que l'efficacité de efficacité mon On la collègue tu es efficace Tu ce liggéey ma quoi c'est ça là après. na nga woo recevoir kenn sa bureau café bi nga bëgg ba nga bëgg sax bu ñu la ko defee doo ko naan man ak yow kañ la ñu am na boobu boo amee loo jaaxal dama ko wax. Louise toog. Louise Madeleine man maa ko yar bul fàtte ni yaayam dafa teel a gaañu.

su fekkee ni document yi yow yaa ko jël nga wax ma xaalis bi ci nekk ak jamaa yi yooyu yëpp ak oris yooyu mën nga ko jël amul problème mais les documents. doy na yow dangaa yaakaar ni li ma la yomb moo tax nga yaakaar ni suñu fi facile gis nga man lu ma nit mayul soxlawu ma ko yow man dama laa mës a laaj dara ba nga bañ lu ma la laaj nga jox ma ko noonu donc ban importance la am ci man ma lay sàcc. soxlawuma xaalis awma problème xaalis sa doom boobu moo am problème xaalis moom mi nga xamante ni faram baa ngi ne nekk si ay problème ba ñu bëgg a tëj atelier bi ñoo ngi ne di ko waaja a porter pour tëj ko moom moo am problème xaalis pas man mais kii yow lan ngay nga ko. mais man soi-disant jarbaat boobu moo nekk si ay problème ay commande jàmbur yu ñu ko jox xaalis bi ni mes ni meles kenn xamul fu xaalis bi jaar. moo ngi ne dañoo bëgg a tëj atelier leen nag yow abu ci leen la yaakaar pour man ci génn te yow xam nga ne leen loo ko joxul am ko te yow yaa ngi nii dangaa téye sa loxo si moom ba pare tëj ay comptam bu la sàccee yoon la booy wër si sàcc dama xool sa doom baaxul. Louise. Le nom, c'est comment C'est Louise. Louise Moi, c'est Drew. Drew, Ravi de faire ta connaissance. Merci. Hamna, yo, dina la takrel, quoi. Hmm. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame. Dol, dol. Nice. Thank <laughs> you. ko yow xam ngeen dool laa tudd ah. ah du góor rek waaw du ma xam sa tur. yéen daal kon daal yéen jigéen jaral na leen ngeen fàtt tur nit jaral na leen ngeen jàpp tur nit gaa yéen a ngi nelaw nag. ba yow yow salaamaaleykum maanaam sa nga ma jigéen jaral na de. waaw man damaa xam ne fii laa doon toog fii nii. barki baam njaara bu sa nii nga ba daal rombee deux di dugg si gaale bi di coq coq. waaw su ma rombee yow nuyu sa nga ma mais la séen nga toog nekk jàmm. yaa ngi doog a jaar mais dinaa la gis nga ne ci jàmm rek. man si jàmm laay nekk saa su looloo ma ñor nag Fall. Hmm. na yoo amal jàmm rek. waxuma loolu kii woon waxi euh, Ndéla fu mu fu ko magam ji dugal. Ndéla fu ko magam ji dugal. mais Ndéla dañ koy yóbbu pour mu sàkku ci xam-xam. mën a defal boppam ëllëg comme que yéen góor yàlla yi ngeen boobu jaamu yàlla ngeen bañ a gis. toog si bunt këram di ko topp lu ne ngeen dugal ko si xelam mi ay série ay nangam di ko tàmmal ay bisu ay affaire yooyu loolu baaxul. mais wa waa fan nga. lan waa fan nga. Sénégal. ngeen nootee xale yi laa bëgg mu dakk Sénégal saa ñu ci deux point zéro. deux point zéro waaw mooy waa point zéro yi nag mu ngi leer nañ yow deux deux deux ko de zéro bi nga gis de xanaa moo tax ñu ñëw di ma laaj ah. booy bi dem na de gars yi nañ ko pour nandal ko leneen lu koy nandal naa suul di. fekkee fii nga ñëw nii pour xoos xool ba xam ni nga laal jakkot bi ñàkk nga ko de booy maa gën a yittewoo fuuf laa ah. gis nii ngay salañ salañ di def ay affaire di cuq cuq li di caga cagalu di expliquer di def ay affaire ma ni tàcc rek toog xamoon naa lii de si xew yóbbu nañ ko yaa mu dëgg yaa ngi doog parce que yaa mu ko gën a soxla moo tax saa yi mënoo maa wax lu ma dégg mënoo maa wax waxi nit dërëm sais la je sais de quoi tu es capable ni ma la gis nga wax xale bi ak ni nga koy tout sauf moom sa yi nga nekk je xamu ci dara dégg nga wax andi d'après mes investigations mes enquêtes enveloppe bi dossier bi ci la or bi nekkoon ci la xaalis bi nekkoon Vous Venons-en à la mauvaise nouvelle la. mauvaise moyenne. Qu'est-ce que sa as fait? ça veut dire. muy sa ça ne sa pas bi ba ci sa gardien bi ba ci bu bi nga je drone drone c'est vrai que Faye a mais tout sauf ma fille.

Abdoulaye fu mu nekk man mii tamit duma la ko wax. dama ko yittewoo loolu du problème dina moom na xam ne maa ngi fi rek. yow mii. aw cee boobu de dañoo sax. piis manqué wul fenn. waaw léegi yow dama. piis manqué wul fenn. ah dama. non mais sama numéro numéro baa ngi ci xel. Hmm. Hmm, génne leen ko si ko bu la ko sax day ñëw. yow xanaa xamul boobu dañ ko yow pour mu def lavage de cerveau. xanaa après cerveau bi yow lay adopté. waaw dañuy lënkale xel mi xam nga rax lënkale si gën a gaaw. pourtant waxoon na ma ko nag ne ak ay pexe jigéen ma jàpp ni xam nga bëgg na ma lay romb di la sànnee xeet xam nga yooyu booy jaralul ma mais dama la bëgg hmm. di jigéen. bu la neex taatu guy. wax ma taatu benn ne. day ñëwaat. fu mu jëm. ah. bu ko ndeyam ak bàyyam indee. non mooy indi boobu. te yep yag na ma ko wax ay dool da daa topp sama da ndax ki kii ba bu la topp ginnaaw. mais benn affaire bo bëggee da lay topp ginnaaw bu yàggee dox ngay dol ay ni kenn amul loo niroo. bàyyi ñu piis la bul piece, déglu mo wax eh fal, déglu wax eh. nga ba pare da nga wax déglu ma déglu la. Eh. dof ci lo bëgg victoire la. lan dof ci lo bëgg. Eh. victoire bu mag la. mais bul piis. non ya ay palaare la bàyyi ñu piis la. kan yow mën naa xaar ñooy pis góor yàlla maa njëkk a pis non gantal nga <laughs> moo tax ma la waroo toog léegi yow demal ma ne ma ñibbi wala fii ngay fanaan toogal maa ngi ñëw fi nit te li nga bëgg loolu laa bëgg li nga toog nii yëpp yow yaa ngi xalaat ndeere ni parce que maam jaara bu sa ndeysaan lu baax ñëpp ko bëgg de oh, billaay lu neex sa ñëpp ko bëgg waaw léegi yow da ngay toog wala da ngay dem da ngay dem dama ko ala yàlla dimbali loolu di nax booy rek ngeen fi nekk waxoo leen booy dëgg ngeen kàcc rek boy son nan de. ben affaire naa la ko l'information ça vient pas de moi ci kaw la jógee te gis nga su ko defal dañuy ñew jaar sama kaw la jàll te sama bop du ma la gënal ko Ben naa la. xolal Madeleine mets-la en dehors de ce problème même la fille aussi je tiens à elle s'il te plaît yow ñaata ñaata ñaata. dossier la ñu traité man ak yow ñaata problème la ñu réglé ensemble et wax nga ko su ma eggee fii tey yow la euh, Matar tu es mon ami tu es mon frère tu es jeune mën nga amaat jabar am ay doom mais am nga xaalis am nga xaalis te benn affaire naa la ko wax il suffit que organisation war la gannaaw mon frère tu es loolu noonu ah bàyyi ci xel loolu réfléchir ci yow ban ñàkk fayda mat mata nga am bay xoole ñuy jël ay sagaru di leen teg ci bureau yu nooy yi yow ñu sànni la fii xanaa man sagaru secrétaire bi sax sama bureau am na clim yow nag ñu sànni la fii tegal la ci ab ventilo bu ndaw ay waay lan moo la dal bul seetaan lii ñi nga xam ne dañoo manqué ñàkk fayda yow nag ñu teg la fii ngay xoole lu la jaral lii doo am sa fula geer geer ha eh, nangu lii waay laajuma la lan moo si sa yoon gis nga nit dafay yam place am sama liggéey sa yoon nekku si kan kan moo la wax ni bureau bi moom ma gënal man maa la wax soxla naa clim wala ventilo. ñàkk fayda gi kenn la dab yow xanaa gisoo kii nekk sa nopp papa yi di wax boobu ba tey lii moom boo ko seetaanee man du ma ko seetaan doo jóg affronté kii. Eh, liggéey sa liggéey ma liggéey sama liggéey sa yoon nekkul ci man ak lu may def dégg nit dangay maanu yam sa place est-ce may dégg. ñàkk a maanu rek laay jooy ci yow ak seytaane man di dama la doon gerle doom mais comme que nag bëggoo man lii moom xaw ma lan la may def ma metti di nga jéem a lijjanti lii rek. te da ngay insister xam nga da ñàkk jom mais da jël jom ruy rek naan. mère defati naa problème quoi. yow ci problème nga dëkk ah, yow ci problème yi nga dëkk gis nga yow mii yaa ginaar yee di sab yéen a yem. mais bu ma wax ay ginaar yee ya, yéen a yam quoi. yow yow yow yaa ngi rek. saa yow rek yaa mën dimbali. abu dóor nañ ma démb dóor yoo xamante ne bu ma juddoo ba tey kenn mosuma koo dóor. yow loo def abu di la dóor xanaa abu dafa def. xam nga kaana. kuy kaana. kaana sa jarbaat. loo jotee kaana. c'est que abu moo ma yónni woon ay balance ba ma yónnee balance yi ma tasanteeg sa waay mu am na benn code de boo xamante ne ni bu ma jiyee xaalis bi moom dina ma ko doublé léegi su ko doublé woon nag man damay mën a jox abu xaalis bi après man projet bopp. léegi yow nan nga def nag léegi. bon léegi nag ñu jiyee ko ñu ko bi ñu gagné ñu. waaye Bilal yow yow Bilal yow lan la Bilal mënoo am jom yow Bilal mën nga ne ñàkk jom benn compromis kese loon te yaa ko naan Bilal lan la arrêté yow mënoo bàyyi yi ngay def. yow lu solo ci ay code 1 code 2 ki eh, ba 5 lu ci sa mec na nga comprendre gis nga affaire il faut nga am fit pour demal sa bop man dama yag beug avancer quoi parce que instant nak comme ay affaire police da ci djuk motax ma ñew dila wax parce que instant man ken pelantuma abulon pelant pelante. waaw mais Louga xanaa fekk ko fi ay eh, ne doon yow ma dem nga baal ma dem. mais dama énervé instant bii je suis tellement en dafa am ne nga xamante ni dañuy war góor di wër góor di wër góor ba bëgg a seen entreprise ba ñu bëgg ma koo jiñ te du ma ko nag du yaa dégg li fi wax dégg nga bu baax xam nga ni kii xaalis buy dugg buy génn ci loxoom lay jaar kii bu ñu fi sàccee ñun fu ñu koy waxi jee man de moo xam naa damay torox yow nag moom boo jéemul lijjanti sa entreprise papa bi du kenn ku la koy lijjanti. yooyu jugal génn si biti dana may daal. yow génn te abu nag bu ñu ko yóbbee police moom nee na du dem moom kese il faut man ma demaale. ah dinga nga demaale kay tax ba doo demaale. mais abu daf ma teg bët kon moom moo dama yóbbu police yow nag yow yaa neex Bilal yow nga ñëw dem ca xaw ma kët xaw ma kët ba jël xaas bi caax caaxee ko te xaasu jàmbur la. ñu pelante yeen ñaar du ngeen and yow nak ku neex nga nak lu tax ñuy and man la ñu pelante wala abu kan mo foye xaliss bi mako foye yow ku ko carte mako carte carte xaliss bi ngay def mo ko bayyi bilaal yow lan la ndax mo lan dama bëgg avancer yow bo bëggee avancer da ngay carte xaliss bo bëggee avancer xalé bu ndaw nga macha allah dese nga lu bari do tok nga concentré wu liggéey ah magandok mom am xaliss lo bëgg a fajj ko waye da nga bëgg a ci ñak fayde yi naan ay code un code 2 xoolal bilaan bàyyi sa yi ngay def. régler damaa bëgg nga régler. mais man li ma la mën a wax leen la abu sa doom la suy dem police na dem dem boppam man am naa yeneen yu may liggéeyam instant yii businessman la ay affaire atelier yi suy dem police na dem dem boppam nga may ma. yow nag yow yaa neex yow nag yow yaa neex nag. xam nga ne yow di yaay dem police xam nga ne abu du dem police yow mi yow yaay dem police yow mi xam ne yaa ñime quatre xaas yow yaay dem police kii daal moom waaye baax na.

yow war nga fay nekk di wax am nga lenn loo wax yow boo ne ma sax dangay rey nit du ma ko wetti ku yeew gardien moom rey nit tëwu la li ngay wax naan yaa ma gën a capable gis naa ko tey ku wax nga wax ji gis kuy jekku sa baay sa xarit du la jaaxal est-ce yaa ngi may dégg ragal lu ma laa def dara te xam nga ma dama capable comme suñu gardien kër laa àttana yeew yow dayoo ma ba dugg gis beneen yoon nga dugg samay dis bi nga xam ne maay kër Please, I'm a terrible man with that. You said I'm not. Yo, you're better than I can, what's the fees? Mais c'est un fils là Non, mais c'est fils. C'est vrai, on a pas de problème. Alors, il y a un rek. Fils, avant de téléphone, téléphone, on m'a sangé. Xam nga ni laa sa yabaate bi. Yaa ngi ñëw fekk mag bu toog, bu seetaan télé ma ko aal commande bi. Mais loolu la moo ci nekk yow fàttali yow la mooy sa problème ak man. yow la moo tax nga bañ ma yow lan la lan laa def te xanaa xamoo fils bu ma lay woowee nii da koy bañ ne mais man yow sama doom nga de da koo xamul yow sama doom la abal ma téléphone. yow Kaana yow ko yabaate man maay sa doom boo bëggee dem koy wër ci mbedd bi yow xamoo sa bopp ba pare boole ci ñàkk jom sa moromu góor yëpp xëy na dem liggéey paa bi nga xamante ne retraite jël na retraite tam sax xëy na dem. liggéey yow nga toog ci kër gi di yeewandoo ak nit ñu il est 11h neloo ba sa tàttàng yow naan alma commande bi. fekkee ne fi ma fekkee ne fii sama bureau la man fii laa non fii laa nekk fii mooy sama bureau ñi nekk di liggéey ak yooyu man yooyu sama yoon nekku ci fii alma télécommande bi ma zappé. fii ma sa bureau ñàkk jom waaw fii ma sa bureau kay toog kilim bi wër la jàkkaarloo tele bi naan ma fii may sama bureau. nga war a xëy def comme say morom dem liggéeyi uti loo def. ñàkk jom boo jógee di dàgg santeeg jigéen ñi nekk ci biir kër gi netteel leen. Fatou yow lan moo tax yow nga fuuy ëppal jàppee sa bopp benn princesse te doo dara yow sa problème yow sa xol bi nga war a ubbi daf ma ci yow la. la def la sama biir xol bi ma dugg sama biir xol yow yabaate. yow la moo tax nga jàppee sa bopp la nga xam ne yow doo dara yow sama fis nga. nga yaakaar nag maa dama laa ragal nit faale mu la jëntu ma. jëntu ma yéen seen acte de barbarie lan la.

su ma la ko waxee nga war koo xam. sax. sa problème yow may ma sama jàmm yan nga ko oh. la lan moo xew ci kii ci boppam moo ma bañ te xaw ma lan moo tax mu bañ ma mel ni man loolu mel ni dama ko rayal taaw lan laa la def. may ma sama jàmm eh, dama koo jéem mais mais ngeen. dafa yebbaat ne fàttali ne yow fàttali ne yow mënoo supporter kaani ñu ubbi sa xol bi def ko ci. ya fàtte la lan ma sa problème a Kaane yow. yow yaay lan lu ma defee sama biir ko te yow defuloo galaay sa biir ko. yow ci réew man galaay mënuma ko bëgg bëgguma ko. kii man tam bëgguma ko. ah waaw fàtte ne réew nga de yow ba may ñëw sa génn si suba ca waañ fa bagage yaa toggukat yëpp ñëw toog ci télé bi lii ngay doo lu baax. lu ngeen togg def ko ci stat yi def ko TikTok toggoo dara yaa ngi si saal si tànte xam nga la laam nga ne bëri tam yeggal si réew torop jugal yow sa pap bu ñëwee di nga xam kan, ne di ma abal kër gi yebaa demal pare dama ak yow togg jaalo rek ak réew nga torop waaye xale bi tax mu réew parce que réew na de yow tamit dinaa war a wax ak moom de dinaa wax ak moom kii dafa réew mais da ngay supporter fàttali ni fàttali ni sarak sarak la non non mais sama fils la bu ma ñëwee na abal ma télécom fii sama bureau la bu ma ñëwee na ko abal ma télécommande ma jàpp du jox sa bureau la loolu nekk di jéem eh. a ay waaw wuyu ma nag noppi nag fii sa bureau la xam nga ne Fatou Kiné la koy def waaye ma la ko def. non non kii sama fils la moom daa xamul la. wallaay xamul. sa fils la de. Eh, waa Kaara. non sa loo bëgg. wuyu ma fii sa bureau la. ni ki tey ma ko naa ko def lu bon. bëggee rek ma bëgg. xam nga boo meree ma aaraat. Kaara la eh, sama xarit nga nag yow ñoo far sa bureau li nga bëgg moo fii am. Fatou daa xamul kii bëggal ndeyam mu ko indi histoire ah benn instant eh, noo ma koy defee boobu <laughs> man yow rek laay wër Fatou ni wër Fatou ni dinaa ko roy dinaa wax ak wala tay lay gëj ci kër gi loolu dootu fi amati bu la dara metti Madeleine yow ban genre nit nga Madeleine. ci lan. ma ni Madeleine yow ban genre nga. xew. Madeleine yow la man pas croire ce que tu as fait. papa Madeleine yow si ak ci man la ne la ndax yow yaa jël document yi nga ne ma déedéet. yi wax la ko. et encore tu mens da léegi da ngay fen. c'est vrai que ni sax da ngay fen parce que j'en ai les preuves que ni da ngay preuve. et puis li ma gën a metti mooy tu as osé jurer sur la tombe de ta défunte mère ci ay fen kon yow yaa sàcc document yi sàcc xaalis bi. papa wax naa la ñaata yoon document yi gisuma ko jëluma ko.

leen mukk sama doom ya kay añ mané ni sama ceebi doom rek hein ah lii hmm? ko kontaan na ci trop waaye. ah waaye yow tam yow sama doom nga yow loo def neex na gis nga nag tey il faut ma kontaan loolu la gën naa laa kontaan lool lool lool lool. lii papa tey moom déet xool déedéet déedéet bàyyi rek. non papa tay xool dama la ko baal bu ci def dara tay tay mo baax na. lan la. papa on bëgg wax ak kana Kaanaati. da ngeen jotee. boo amee loo may defal. waxal ma carrément moom dama bàyyi tout tranquillement ndax bëgguma am ak moom problème te am na foo xamante ne bëgguma fa yegg ak moom bëgguma ko indil police wala ma koy porte plainte wala ngay ñëw fekk ne jam naa ko wala jam na loolu ëpp naa def loolu ëpp naa def su boobaa ma laaj ana kilifa kër gi lan ngeen ci salle bi waaw di seetaan sama télé waaw kaana ñu di xëccoo ak man commande bi xanaa loolu ñàkk jom may wax mu may xas te man leneen doo nga laa ko wax xana yow sa morom yëpp di xey di liggéey goor ñi bu ñu xëyee liggéey yow nga tok fi di dal seen teg jigéen di xulo jigéen ni ah, may wax sama yaay di koy faral yow li nga wax deug la li nga wax deug la goor bu demee ba jigéen nan ko waro tok ci saal da nga wara wara liggéey nga xamni goor bu ñak jom la ah sa yaay moom mën na wax suñu waxe kana rek mu duggal ci ñam bi loolu fan la ko tek li de la ko wax papa li mu wax dara la ceenee ya ko wax deug nga ko wax comme nak dafa ree wala mu am mu am mu yaakaar teel ma ni kaas kana tay la lay mujjee def lu la xari tay tay ji tey jii la la kaana di romb nga koy romb wa kaana sax bu ma dul toogati ci kër kaana bu ma xëyatee même bu may xëy kaana dem ca boutique ba di bale wala di ximataay ma koy tuur kaana dootul yéen ci kër nag dina xam la laal nga def ko sa bopp bu dee sa amul yi nga yaakaar ci kaso bi lay deewee gis nga ñi ko porté

sa papa eh, tu te tais quand je parle sinon tu vas me sentir tu vas me sentir là alors. defal contact. dama tu prends tes bagages tu quittes mon entreprise et à la maison Maintenant, la defal le frontières parce que bu ma la génnee bagages et tu sors disparais de ma vue. MPC-kaci no taimo hamna da não na faya ko musu ma faya ko me mu taimo da ma faya dans cinq minutes não, da de zonze comme ça là wow zonze eh zonze loda jogal taxaw da nga teg sa tànk ci taabal eh xoolal dama ne nga jóg taxaw moo xam ne ñaari baat yow Kaana daa ma xam nga lu mu la bëggee lan moo tax yow Kaana nga imbécile laa la bëgg a laaj ah. lan mooy problème bi. lan mooy sa problème ba nga xëy ba nga toog fii suba tey di xëccoo teg Fatou Kiné ay ay commande affaire góor jigéen ñu ñàkk fàtte yooyu eh xam ma kon nag Kaana da nga ñàkk jom Kaana na nga xëy ànd man ca palaas ba di yenu bagage di yélu bi teg di yélu teg bàcc teg wàcc non mais toos man boo yélu de sama nekk bi man amoo dara toos boo ma mënee daal mën naa dem xëy nga jox ma place may dem Dubaï Chine di jënd bagage di changer eh, xam nga lan man man mais ay yélu moom boo ko mën a def de man bu nekkee man la nga xamante ni waxuma waxuma Dubaï waaye jàmmate sax doo fa dem xam nga li ma la bëggee nga mooy góor dafay def yi góor bis bu sa loxo bi laalantee fàttali ne dinaa la def loo xamante ni boo kat kenn loxo nekk yaa ngi dégg li may wax Basiir waay. ndax góob dégg nga dem yàlla ci wàll nga seet leneen loo def. ba pare en plus fii sama bureau la sama bureau la ma fekk bëgg ma andil ay problème parce que dafa réew. fan mooy sa bureau. fii mooy sa bureau fii bis ni que tey bu dee bureau la tey ngay demee naaj. tey jii ngay demee naaj fàtte na yaa ko gën a réew tu tu koom ndax moom bu xëy sax li muy utile mu def yow amoo loo def yow loo amoo loo def yow nga amoo dara loo def sa lii nga yow dangay dee mu peer dangay liggéeyi la yaa ngi nekk dina yow. nga ne doo yow. doo yow mais mais Tata. Tata. waaw lan la lan moo xew. ah sa kii bi doo wax moom. lan la xewati loolu la. parce que moo dem wax ay wax mu ñëw commencé engagé ma di ma tagal ay affaire bi wax la sa ngaaka bi waaye. ah alaaji fii la la fekk rek nga toog moo attaqué fii la ma fekk di ma attaqué di ma andil ay affaire bu ngi noonu di foxal foxal di dem. foxal foxal yow toogal kenn du la fi laal ci kër gi toogal. toogal war a wax. dama la ñu wax maa ngi doxal. dama la ñu wax maa ngi doxal. teel sa bant bi laa teel a ngi taxawal. waaye kii kër gi lu ko daal. billahi wallahi wa taala soo ko yow kaanu fekkee ci néeg wala mu fekkee saa bi nga xam maa la gën a réew. alaaji rek de alaaji rek de alaaji loo dal. xamoo ma dal. yow bu sa station bi yéegee di nga xam. na sama station jël oto dem. na départ sama station na jël oto dem. bu demee rek man ma des ci ak xaalis. na départ ci biir laa dem. alors que ci wàllu plomberie nak mo fi toog ay matériel de toute nouvelle génération ma électricien yi mom dañu fa sax abonné ndax li ci xéti lampe décoration dama ni duma la limal lépp lu jëm ci wàllum électricité EDM établissement Touba Darou Minane la ci gëna a rafet la andil ko askan ah kay wa EDM Touba Darou Minane jañé frère ñi né nañu ñoo bañ duñu tàqalikoog lu bax maa la ko wax de Tamanila dal la dal bañ sa bopp weesuwul romb EDM ay pompe suppresseur d'eau ay tuyau PVC original damale la ñi bàyyi wuñu dara lépp luy construction bo fa démé ñu jaay la original ba ci ay prix yu abordable sen tu asamaan dal jarul buuxante Wa EDM établissement Touba daru minan Diagne e frère ñu ngi fi ci Thiès ci quartier Touba Thiès gi ci marché Moussante waaw waaw xam ni ñépp a xaar ma joxe numéro téléphone yi jël It was on descent, 539 25 81 wala 33 951 11 83 Roydal daal du EDM établissement Darou Minane ndaw dekk bu gëna rafet ci Sénégal muy góor yeen ñi jongante passé concours nga bëgg tukki mu dëgër lool mbaa ngay lijjanti ay kayit kay ma wax la ci Serigne Jaabi borom si bi jël leen numéro téléphone bi daal di jokkoo ak ko ci 77 357 65 65 mbaa ngeen 76 495 90 03 fu ngeen mënti nek ci mi ba biti réew bu ngeen jëflante ak moom seen aajo di faju ci lu et alors portable.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 may la tee boo xam ni ñu shine like diamond hey ladies look at this Bimoy, la gamme VIP marron savon et crème Bokoy Sango, sangoo lépp luy ak bépp tache Jambat, doon jàmbat dootoo ko gis ci sa yaram rax ci dolli góor ak Jigen, ñépp a koy utiliser hmm, j'adore tes rondeurs xale Jigen, jigéen bëgg ñu forme dafa rafet et eh oui ma la solution est enfin arrivée lii la gamme VIP jongama est c'est à votre disposition kayok yokk ange, hanche seins et ak tout tout aussi gis effet secondaire Manila, un produit à base de carité. 20 jours là la maille pour la neexee à commencé à njaabu